amoon na ci benn courant boo xam ne ñoom dañu ñëwoon non loolu dañu koy bañ parce que dem élection am Sonko comme candidat rek doy nab ngoon boo ci bëggee boole Idrissa seek boole ci xalifa Sall boole ci kii boole ci ñoom góorgóorlu day kii comme donc ñii ñoom kii nañ nañ leen éliminer. Hmm. ñu jéem a xool amoon na ci benn tendance bu dem noonu. mais pour man président Macky Sall foofu la amee xalifa ah foofu la ko amee. xam nga ne woon naa la président ndeysaan bu la bëggee fexel. du hmm. ñëw rek tëb dong la. song la da ëffal. te des fois bu la ëffalee benn yoon. bu xoolee nii yaa ngi jekk ba léegi. Hmm. dana la ëffalaat ak keneen pour nga gën a jekkati. fii ne hmm. président oh, comme moom moo waxoon xalifa. Euh, ñëwal boo ñëwee danañ ko regle kon donc il faut mu jox ko benn euh, début de réponse ah léegi début de réponse bi. Hmm. mooy assemblée. oui mais réponse finale bi mën na la nekk justice. oui donc comme hmm. maalam meeboon ba këppatal la <laughs> léegi nag il faut ma jox la dugub pepp yi moom foog ma jox la ko. Hmm. léegi mooy assemblée bi ñu voté loi kon moo defee mel ni du point de vue symbolique. kit nag moom. léegi nag. parce que Macky Sall daf koy soxla ci li ñu jëm nii. pour ah. renforcer son bloc. mooy bis bu demee ba xalifa bañ. Hmm. mu ne ko ah man de la ma diggante woon yow def. def naa ko jaar na assemblée waaw jaar na assemblée li ci hmm. des nag du ci man on est la séparation des pouvoirs. demal xooli bi yoon. moo tax moom boo maytul sax du bokk. encore que ah oui waaw ah oui mais juridiquement Khalifa Sall pour mu bokk c'est un problème juridiquement parce que euh, pour Khalifa bokk. Hmm. y a deux choses même bu loi bi jaaree fële. il faut que ñoom ñu fay amende bi. Euh, moom ak Karim Karim. il faut que ñu fay amande bi bu ñu fayee amande ba pare seen problème jeexagul il faut que président Macky Sall ubbi benn période bu ñuy tuddee révision exceptionnelle xam nga révision exceptionnelle ubbi woon nañ ko ba pare. Mm. d'abord est-ce que loi bi boobu sax révision ordinaire la waroon doon. on très bien ñu def ko est-ce que léegi loi bi prévoir na deux révision exceptionnelles. Ah. problème la troisièmement CEDEAO dafa tënk délai yëpp ci six mois. à moins que mu am consensus. mais consensus boobu il faut mu nekk une large consensus. mais xam nga ñi demoon ci dialogue bi. ak ñi demul ci dialogue bi bokkuñu du ñu nangu. même bu fekkee am nañu jaar prolongation. deuxième dialogue bi mën na cee xaj. donc du point de vue. Euh, disons politique. Euh, ak seen dialogue bi. Euh, disons mu la neexee nga ni réglé nañ ko. mais du point de vue juridique moo tax président Macky Sall. Hmm. ci ni muy kiiwee Khalifa moo tax hmm. Khalifa def na erreur def na erreur bu mag a mag ne président Macky Sall da koo ëffal ak assemblée euh, mu génn ci. léegi mu ëffal kook justice te yaakaaruma mën na cee génn ak justice su boobaa président Macky Sall day gagné ñaari yoon lu muy gagné mooy tas na dynamique am moom moo Sonko deuxièmement indi na ko ci wetam euh, am na lu mu bëgg parce que à l'éventualité Macky Sall hmm. euh, mu am Khalifa Sall am am hmm. moom quand mu gagné mu yóbbu sa Khalifa Sall assemblée nationale da koy gënal foofu. keñ mu delluwaat très bien ak Sonko mu delluwaat mais dafa mel ni probabilité boobu moo nekk di joué yi donc donc léegi. Euh, dana ko ni euh, léegi suñu àndandoo yow jeexagul. moom mooy saako ba ma la doon wax. da koy teg ne da ko xalifa yaa ko moom heure bu xalifa jógee dem bay jël mu ne ko no toogal rek daat ko ci compal mooy président compal Macky Sall daat ko koy jox xalifa du jël saako bi <laughs> te du mën a dem mais léegi nag ci compal boobu mu lay compal ci la lay profito di la waxaale li mu bëgg ah. ngay defaale li mu bëgg ah. parce que boo deful li mu bëgg du la compal kon pareeguñu non pareeguñ ñoom ah. ñaar comprendre nga. Ah. c'est-à-dire xalifa. Euh, euh, hmm. da euh, fi ñu toll nii amatul destin en main. cest que il faut hmm. Macky Sall bu fekkee dafa bëgg na dara ci moom. Hmm. il est mu def ko su ko deful Macky Sall danaa ah, mais man de li ma na ko. def naa tout daal ba nga bokk léegi nag comme dañoo nekk séparation de pouvoirs nañ dem déposer mais mais comme moom moom moom il a été radié. Oui. attention oui. il a pour mu mën a bokk il faut ñu inscrire ko te délai d'inscription yi passé na. kon moom 2029 lay nar a bokkaat su président euh, trouvé wul euh, solution est-ce que comprendre moo tax dafa def erreur bu moom laa lay wax ni dafa waroon toog rek ci Ousmane hmm. parce que bu toogoon ca Ousmane ca Yewwi Askan hmm. ci li ñuy lijjanti nii nii en tout cas dégel bi yii yëpp du mën a am te duñ bokk euh, très bien ñoom ñëpp danañu bokk te du du du ñaaw quoi mais bon ni nga ko xamee ak ni nga wax ni mu jaar ci politique mën naa mën mën nañ ko mën a keppee noonu. waaw xam nga ba du fekk moom calculer ni yëpp la ci am parce que même ci seen déclaration boo ko dégloo mooy ni waxtaan wi tàmbali na bu yàgg. waaw mais xam nga seen biir euh, loolu moom Barthélemy Diaz a ko toj. doon ko yaatal oui. mbër. dimanche bi muy daanu. Hmm. boobu cuune lay nekk. Khalifa Sall mbër la <laughs> à un certain niveau mm. de ton art mm. le diable dans le détail ah <laughs> à un certain niveau de ton art oui. il faut regarder les petits détails ay hmm. détail moo lay daaneel détail détail ay détail moo lay daaneel avec une mauvaise appréciation de la réalité et pourtant il est entouré de de de de déjà maire bu Thiaroye moom mooy ci avocat mi la bokk. xam yooyu non non non parce que li nga wax laa lay complété dama lay complété li nga wax nii. li nga wax nii laay complété. c'est important ñi lay bàyyi xel ñu ngi lay déglu. di la bàyyi xel dañoo bëgg comprendre. parce que la dernière fois. Mhm. yaa ñu doon wax la folie politique. Mhm. gaañ fa ñu ne. di ko euh, décortiquer xam nga yooyu euh, suñ ko fekkee fii mooy ni. dafa nekk benn euh, folie politique bi ñu di doxal. ci biir Aliou Khalifa à l'image affaire yi fo folie politique malheureusement euh, euh, ça n'a pas ou à terme ça risque de payer difficilement mais bon c'était une folie c'était un coup de poker politique quoi mais je pense que. Hmm. Euh, mi ngi mel ni ñetti xob quoi. ñetti xob waaw bii gañ bii perte <laughs> ñaar rek mën a am da ngay gañe wala nga perte. il a joué il a joué il a perdu. kon ñaar la ñaari xob. waaw c'est-à-dire que xam nga ñaari xob. bii gañ bii perte. perte munoo gagné perte en même temps. da ngay gagné wala nga yi. donc il a joué il a perdu. perdu alors euh, euh, ci biir euh, la jàlloon ci assemblée nationale dañoo on a parlé de la mort de la CREI. CREI waaw. am beneen bu ñu bëgg a dundal. Mhm. bu ñu bëgg également dekkilaat. Mhm. pour financer pour xeex lépp pour jëm ci wàllu garag ya ci aju. Mhm. gis nañu coow lu bëri la ko entouré même des acteurs politiques yu taxaw. ñu bëri nag taxaw ci timing bi. pour pourquoi mm-hmm. maintenant. Mm-hmm. pourquoi maintenant ci période boo xamante ni gis nañ CREI li mu fi jot a jur ci ci ci réew mi ak coow yi nga xamante ni juddu nañ ca yow sa akulaay taalaa ci lii bi nga ko déggee lan nga jàpp ni moom moo ko motiver. ray CREI yi. Mm-hmm. dekkilaat leneen ci contexte bii ñu jëm. waaw am na ñaar am naa ci ñaari analyse ba ñetti analyse hmm. d'abord CREI euh, yi. Euh, en tant que juridiction. oui c'était assez problématique déjà. Hmm? Hmm. ca ni ko tëggee woon. CREI yi ñoom ñoo toppoon Karim Wade. oui ba ñu defee ca la ñuy def lépp ñu nii Karim Wade amel na état du Sénégal. cent trente milliards ou cent trente huit milliards. cent trente huit milliards. téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards. bien. ñu dem ba ci digg bi soxna Mimi Touré alors euh, premier ministre. Mm. Euh, non au ministre de la justice. je oui, ministre de la justice waaw ci moom sax la mbiri départ ministre de la justice. mu oui. ne dans le ta dans le cadre de la traque des de l' enrichissement illicite. Mm. bien des biens mal acquis. et hmm. cetera mm. ou supposé mal mu ne état du Sénégal recouvrer na ci gars yi ñëw delloo si affaire yi. Hmm. l'équivalent de deux cent milliards. oui Amadou Ba à l'époque ministre de l'économie des finances. taxaw fii ni ñoom gisuñu xaalis bi d'abord interrogation. Hmm. en général quand l'État du Sénégal transige. Mm. avec quelqu'un l'argent est déposé au niveau de de la caisse de dépôt et consignation. il y a dans le milieu financier financier ce qu'on appelle les virements flash. oui xam nga luy virement flash. mooy.